génn préfet pour autorisation bu nu dugaloon pour euh, vendredi bii nii bu mujjee bañ waaw motif bi nee na délai bi te boo xoolee détail lay nekk garaawul mais euh, ñun comme lu waxoon rek tànku jàmm ak tamit tànk euh, bëgg askan bi xam ni réew mi il faut ñu ñun rek ñoo ko mën defar te ñun ñoo si mën taxaw tamit am na yoo xam ni waruñu ko nangu te duñ ko mës a nangu tamit ndax ñoom yorin boo xam ni yorin bu bu bon def seen ay erreur bëgg jël loo xam ni teg ko askan bi jëlaat xaalis boobu di leen ko joxaat loolu moom ñoo lànk quoi loolu dañ koy bañ te dañ koy taxaw temm di ko xeex. waaw marche bi moom den ko dina am incha allah vendredi bi di ñëwaat déposé nañ nii kayit baa ngi nii te dina déposé nañ ba pare di xaar te bii paa nag waaw moom préfet bu yow mu dégg ñu duñ si nekk di di expliquer ndax nag loolu suñu droit la am na lu ñu doon xool ndax tamit ñun bëgguñu ñuy woo woo fi nit ñi si fitna. mais sénégalais ñooy àttee dugal nañu pour dox jàmm ñaxtu wax suñu nekk suñu xol gis ngeen xañ nañ ñu ko mais bii nag moom duñ nangu loolu nag bi moom ndax réew mi dañoo ñëpp benn lañu te ñëpp ñoom moom ñëpp bokk réew mi jël leen seen ay règle ak seen ay loi teg ko ba fexe ba léegi Dakar gis ngeen zone yoo xam ne yéen foofu kenn marché ci mel ni réew mi dafa am léegi ñoo xam ni ñoom ñoom la ñu jox Sénégal ñu ñu mel ni ñu ko moom ñu na lii Géejawaay lañ ko initié bàyyi leen sen Dakar mais bi euh, y a euh, inshallah rabbi vendredi bi mom dinañ marche dinañ marche wax cheray courant bi dinañ marche ngir Guy Guy maris genn dinañ marche ak yeneen ñu ñu japp ñep si marche yee dinañ fexe ñu ñep inshallah ñu genn ndax Guy ba mi xex tamit xexalul faktur na facture bi du facture kërëm kese la facture Sénégal yëpp la waaw lool tamit dañ ko bolé si xex bi té tamit lool tamit ñong koy joytu ba légui waaw Marché marché, Inch'Allah, dina am ah, si on nous a pas donné l'autorisation de marcher aujourd'hui et nous voulons bien bien de marcher aujourd'hui mais mais le préfet a suspendu notre euh, notre besoin de marcher et nous le et nous le suspensons aujourd'hui mais on vient de déposer une autre autorisation de marche vendredi prochain Inch'Allah et, j'espère que cette fois-ci, il nous a, il a l'intérêt de nous autoriser. Euh, vendredi, Inch'Allah, nous marcherons. A ou B, nous marcherons. Euh, les motivations du préfet, il nous a dit que et le délai que nous avons déposé, les quoi, il est court. C'est pour, cette raison-là qu'il nous a interdit. Mais euh, c'est pour ça que nous avons pris devant et pour déposer aujourd'hui aujourd'hui même le vendredi, il a un délai de une semaine pour nous autoriser. Euh, c'est ça notre motivation de marcher euh, pour que l'électricité, euh, l'augmentation de l'électricité, et nous n'avons pas d'accord sur ça. Non, nous marcherons, nous marcherons. Dans toute façon, nous marcherons parce que c'est notre droit. Eh, c'est notre droit. et, eh, eh, droit, on nous négocie